Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah. Alhamdulillah ini Nissan, ini Nissan. yàlla doon waxtaane léegi nga dugg si léegi rek léegi rek dafa am benn soxna su nekk France chrétienne la sax mari la tudd moo doon moo doon rafetlu seen doxalin rek ak di santaat kut ku baax ki rek di expliqué daal daan nañ Sénégal xamuñu sax waaye jeune daal jàpp na ni kenn bañu ko waaye bu amee ñu ko bañ ni ko ñu ko bëgg ëpp fuuf daa ndegam ay chrétien ñoo koy bëgg di ko war maa ngir li ko yàlla defal Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi allah taala wabarakatuh. barakaatuhu ziar sénégalais yëpp di jiital ci ziar bi kilifa dina yëpp kilifa dina suñu tuddé señ Muntaka Muntaxa khalifa général des Mourides diko ñaanal mu yàgg fi lol te and ak wër. mel leen tudd nañ ñëpp di ziar señ Basiiru Mbàkke khalifa borom Darul Mukti. di siar sénégalais yépp di len sant bu wër gis nañu soutien yi boote yeeg taxaw bi yépp gis nañ ko ñu ci bu wër man la papa bubu Diallo Lima dal nak. dama koy sante Serigne Touba di di jël lepp diko di delo njukkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndaxte lepp mom mom mom ci mom la ci mom la tambalé di siar tamit sama kilifa yi nga xamanteni ni la nekkalon ma ngi leen di sant bu wër wër tay tamit topé mo leen dara ndax dama xamni ni mbirum serigne touba la rek mo ñew mu mu jaaré ko ni di di siar sama classe sama promotionnaire yi ma ngi leen di siar bu baax ak sama collègue yëpp di di soñu tamit ndaw ñi ñu gëna a serigne touba gën a wóolu Serigne